yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fukkeelu njàngale mi ak juróom yàlla aar na yusufa nanu bamtu nettali yi weesu benn lan la yàlla dig adama yàlla dig na aadama ne kenn ci askanu jigéen ji dina daan seytaane ñaar naka la yàlla musalee isaaxa yàlla joxe na am xar ngir ñu saraxa ko mu wuutu isaaxa ñett lu tax barkeelu yàlla jóge ci esaawu dem ci yanqooba yanqooba faydaloon na barkeelug yàlla moo tax mu nax isaaxa ngir jot barke bi esaawu waroon a am ñeent lan la yàlla won yanqooba ci gént won na ko benn yéegukaay bu jóge suuf tey laal asamaan ay malaaka di yéega ko wàcc ci yéegukaay bi yàlla taxaw ca kaw juróom lan la gént gi tekki li mu tekki mooy musalkat bi te mu bokk ci askanu yanqoba dina mel ni ab yéegukaay bu jóge suuf tey laal asamaan musalkat bi mooy ràmmkat bi juboolee yàlla ak nit ñi mbind mu sell mi ci njëlbeen gi saar ñeent fukk ak benn aaya fukk ak ñeent ba aaya fukk ak juróom benn bi ko Firawna déggee mu yónnee ñu woo Yusufa ñu génnee ko kasa ba nag bu gaaw daldi ko wat mu solu ba noppi mu dugg ci jataayu Firawna Firawna ne Yusufa dama gént te kenn mënu koo tekki dégg naa ñuy wax ci yow naan boo déggee gént rek di nga ko daldi mën a tekki waaye yusufa tontu ko du man waaye yàlla moo jox firawna tontu jàmm bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla aar na yusufa nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla aaree yusufa yanqoba amoon na fukki doom yu góor ak ñaar waaye yusufa la ci gënoon a bëgg ndaxte mu ngi ko am ci màggatam benn bés yanqoba may yusufa menn mbubb mu rafet ay magam daldi ci mer yàlla itam won yusufa ci gént ne benn bés dina jiite waajuram yi ak doomi baayam yi ci gént gi mu gis jant bi weer wi ak fukki biddeew ak benn di ko sujootal yusufa nettali ay magam géntam loolu añaanloo ay magam ba ñu bañ ko lool mu am bés yusufa dem fa magam ya doon sàmme bi ko magam ya gisee ñu fas yéene rey ko waaye kenn ci ñoom ku ñuy wax ruben ne nañu ko tàbbil ci teen bi ruben dafa bëggoon dimbali yusufa gannaaw bu loolu weesoo noonu ñu summi mbubb mi tàbbal yusufa ci teen bi ñu gis ay baana baana waa ismayil yu doon dem misara ñu jaay leen yusufa ci ñaari fukki ci xaalis ganaaw loolu ñu wis deret ci mbubb mi yóbbul ko yanqooba yanqoba jooy ndax naqar foogoon ne ab àll moo rey yusufa baana baana ya yóbbu yusufa misara jaay ko benn xarekatu buur bi ku ñuy wax potifar waaye aji sax ji ànd ak yusufa daldi ko fay barkeel potifar fal ko bëkk néeg dénk ko lépp li mu moom benn bës yusufa dugg ca biir kër ga ngir def liggéeyam jabaru potifaar jàpp ci mbubam ne ko kaay tëdd ak man yuusufa wàcc mbub ma cay loxoom daw genn kër ga noonu ndaw sa wax jëkkëram ne yuusufa dugg na ca néegam ndax bëggoon a tëdd ak moom potifaar meroon ca ba tëj yuusufa kaso bi yusufa nekkee ci kaso far buuru misra firawna gént ci biir gént gi juróom-ñaari nag yu duuf génne ci dexu niil gannaaw loolu juróom-ñaari nag yu yooy génne itam ci dex gi nag yu yooy yi lekk nag yu duuf yi noonu firawna géntaat geneen gént booba yoon juróom-ñaari gub yu gooy wan na juróom-ñaari góob yu nangu te baax am ku fàttaliku ne yuusufa mun na firi gént noonu firaw na woolu yuusufa yàlla dimbali yuusufa mu firi gént gi yuusufa firi gént gi ne dina am juróom-ñaari atu mu naat teg ci juróom-ñaari at yu bon maanaam xiif firaaw na bég lool ndax li yusufa firi gent gi ba def yusufa jaraafam ci kaw misra noonu yusufa tàmbali denc pepp ngir waajal xiif mi juróom-ñaari at jàll xiif daal di ñëw ci misra xiif amoon na ci kanaan itam fa yanqoba ak ay doomam dëkkoon waaye pepp amoon na ci misra ndaxte yusufa dencoon na pepp ci diiru juróom-ñaari atu mbéy mu naat ma yankoba dégg ne pepp am na ca misira mu yónni fukki doomam yu góor ngir ñu jëndi pepp bi magi yusufa yi ak seen misira yusufa xàmmee leen waaye ñoom xàmmee wuñu ko woon ñu ñëw ci kanamu yusufa sukk ndaxte yusufa moo doon njiitu misira gannaaw firawna yusufa fas na yéene seetlu ay magam laaj na leen ay laaj yu bare yusufa fexe ba ay magam indi benn semaine seen caatu baay ngir wane ne li ñu wax dëgg la gannaaw bi ñu dellusee ak benn semaine yusufa jiiñ benn semaine càcc yuda tinu yusufa ngir mu bàyyi benn semaine mu ne yusufa ne dina wuutu benn semaine doon jaamam noonu yusufa xam ne magam yi soppi nañu te rëccu nañu li ñu ko defoon moom ganaaw loolu yusufa wax leen moom mooy kan ñu tiit lool ndaxte yaakaaroon nañu ne yusufa dina leen bugal ndax li ñu ko jaayoon jaam waaye yusufa baal leen leen yàllaa ma yónni ma jiite leen ngir mën leen musal mu ne leen ñu indi seen baay yanqoba ak waa israel yépp ñu dëkk ci misra bi ñu delloo kanaan ñu nettali seen baay mbir mi ak li leen yusufa woo ci misra yanqooba ak waa këram yépp dem misra juróom-ñaar fukki ak juróom lañu woon noonu mu amee ni ko yàlla waxe woon ibrahima lu yàgg yàlla waxoon na ibrahima ne ay sëtam dinañu dem ci meneen réew te doon fa jaam ñeenti téeméeri at ci yoonu misra yàlla wax yankoba ne bu mu ragal dem misra ndaxte yàlla dina delloo bës ay sëtam ci réew mi mu leen dig muy kanaan bi yankoba ak waa këram agsee ci misra firawna berndeel baayu yusufa ak waa këram firawna may waa israel suuf su baax ci misra ay at yu bare jàll yankoba génn àddina ci misra fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn lan la yusufa gént ba tax magam yi mere ko dafa gént ne dina yilif waa këram yépp ñaar lan la magi yusufa yi def yuusufa dañu sumi mbubam gannaaw gi ñu sànni ci am kàmb bi loolu ñu jaay ko jaam ay baana baana yu doon dem misra ñett ndax li magi yusufa yi def bàkkaar la waaw ñeent lu tax yusufa am teraanga ca potifaar yàlla moo àndoon ak moom juróom lu tax ñu tëj yusufa kaso bi yusufa bañ tëdd ak jabaru Potifar dafa ko jiiñ ne dafa bëggoon a tëdd ak moom. juróom benn naka la Yusufa génne kaso. yàlla moo ko may xam-xam ngir mu tekkil Firawna géntam. juróom ñaar lan la géntu Firawna tekki mu ngi tekki ne dina am juróom-ñaari ati naataange gannaaw gi juróom-ñaari ati xiif juróom-ñett naka la Firawna fayee Yusufa dafa ko def jaraafam ci kaw misira juróom-ñeent lu tax magi yusufa yi tiitoon bi mu leen waxee moom mooy kan dañu ragaloon foog ne yusufa dina fayu li ñu ko defoon fukk lan la yusufa def dafa leen wax ñu jëli yanqooba seen baay ak seen waa kër yépp ñu ñëw dëkk ci misira fukk ak benn lu tax yusufa fayiwul dafa baal ay magam bàyyi lépp ci loxo yàlla fukk ak ñaar naka la yàlla sottalee gént gi yusufa géntoon bi mu nekkee xale yàlla may na yusufa xam-xamu tekkil firawna ay géntam noonu firawna def yusufa mu yilif waa misra looloo tax mu yilifoon itam kër baayam bi ñu toxosee misra fukk ak ñett lu tax yusufa dem misra yàlla moo ko bëggoon yan melokaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla mooy boroom doole yàlla bayiwul magi yusufa ñu rey ko yàlla yóbbu na yankoba ak waa këram yépp ci misra ndaxte loola la yàlla lu mu dige def ko yàlla waxoon na ibrahima ne ay sëtam dinañu dem ci meneen réew gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla barkeel na yusufa ci misra yàlla yor na waa Israël ci jamono xiif ba yàlla xam na lépp yàlla may na yusufa xam-xamu tekkil firaw na ay gëntam beneen yoon dinañ waxtaan ci ni yàlla tànnee Musa